What up, guys? What up, guys? What's up, everybody? Some guy. <laughs> yeah, before going faster, allow me to reintroduce myself again. I go by the name of Malachon, and I'm from Senegal, West Africa, Rio City, my town. <laughs> Here you go, my pop J, Ryan Wandau. You know what I'm saying? Because my Mustafa Mane from Belgium, I got Dagot from Belgium. Because my Alindao, you know what I'm saying? Fadel Faye, because my Mudufal, because my Baba Cham, Baba Kerpui. you know what I'm saying? Some guy, Black Boy, man. Huh? moo tax sama gars je vais parler de Macky Sall ci en premier après wax ci gafan, Mbaye Niang quoi duñ yàgg fenn duñ yàgg fenn quoi premièrement li may wax ci Macky Sall mooy maanaam tey jii euh, discours boobu mu def gars yi wër ko muy taal boppam naan dëkk boo xam ni nit ñi xamoo ko wolof sax wala ñi ñoo xam ne liggéeyuñu xëyuñu gontuñu toog di di nga rek lañ fi nekkee affaire yooyu noonu quoi man fa président bi dama naan dama naan ndax moom bu ñu am quoi man xam nga ma ci Macky Sall yow Macky Sall liggéey bi nga am. yow liggéey bi nga am peuple moo la ko jox président toujours moo ne anybody can be a president président mooy li gën a yomb si monde bi président leen na kese la ñemeel àq ñemeel àq ñeme nangul li la tubaab bi wax parce que tubaab bi moo lay àll bët ne la ngay xool tu vois nga jël nga ñëw ñu fal la may la doole ñooy organiser élection yi yoo xam loolu tubaab bi wax yow occupe-toi tout simplement de faire ce qu'on veut loolu tubaab bi wax donc président ku mën na ko ne tu vois donc yow Macky Sall yow Sénégal la jox amoon ngay problème de location affaire yooyu yëpp Issaphil comme tous les Sénégalais comme ça ni comme man comme keneen comme Ibrahima Ndaw comme Babacar Dieye comme Babacar Pouy à joindre les deux bouts am nga xaalis mais xam nga xaalis bi la am doy la ba nga am problème sa fay location tu vois tubaab bi jël la teg la comme leur pion teg la ci kanam ne la wax suñuy waaw ak lu nii élection yi ñoo ko res Issaphil ak leneen loo dugg ñoo lay couverture dul nga leen jàpp di leen tëj Isaïfil di leen tëj di leen buntu xataal Isaïfil di créé ne man dictature man man c'est un dictateur sans pour autant nga wax ko tu bu la neexee ngay toog xool premier ministre arrangé ko la nga ne non non nga toog ba si yàgg ne Khalifa Sall mii Isaïfil ak Karim dañ may gêné taxaw ma tëj leen nga tëj leen tu nga jékki-jékki xool maire Dakar noo xoolee mënu too ko gagné surtout euh, à travers les cartes nga ne décret ngay la Saint-Louis parce que bi ngeen agence pour la xaw lan pour la rupture naka de c'est pour la pour rupture quoi ngeen baal ma si terme tu vois donc loolu waroo ko waxee yaa ngi loolu waroo ko waxee waroo ko waxee na ne xëyuñu loolu war na génn si gémmiñ ñëpp ba mu des ñëw parce que yow tu nous avais promis des emplois yaa promettoon jeunesse bi ay emploi ba ñëw di jàppale tu vois te sax man du ma gëm ne jeunesse bi ñëw promettoon ay emploi ah, moo tax ñu j ñu jàppale tey non on avait l'habitude de voir les vieilles, les vieilles, les vieilles, les vieilles faces comme ceux de Tanor, de, de, de, de Moussa Fagnas, de, comment dire, ces vieilles casseroles-là, on avait l'habitude de les voir. Dem le deuxième tour, nous là, tu étais victime de Wad, euh, on a écouté ton, ton mandat, nga dem ki, ñu ne kon taxu ñu jappal tu vois. Donc du choix Il tek a un fils qui taxa falu. Reste ci gol gay gën fandé. Lolu tax ñu tégon la, tu vois, tu vois. Mais nak ya fi sey mom, lu fi sey mom tout le temps doom lu la jël neex, bon choix buñu porter d'accord. donc nga fayee ñu lii man bettu ma tu vois parce que tamit yaa fi sës pièce de résistance kese nga yaa fi sës tu vois donc waroon waxee noonu quoi parce que jeunesse bi bu ñu jobbul ku jobbul kay foog nga toog lijjanti ku amul liggéey boo def foog nga toog si grand place yi nag pour génn jéem a dindi sa stress doo fi toog stress bi di la rey ngay nekk mécontent nekk ci dëkk boo xamante ñu tey jii ñoom ah, seen budget 13 milliards dem ba 62 milliards ah, am ñu fa détourné xalaat TV seen bu am solo la ngeen dem foofu noonu quoi xalaat TV dafa xalaat TV quoi seen rek malversation yi fa ne ña fa nekk di fay 15 pour cent courant xamu 10 pour cent seen seen facture Usain Ville bu ñu war a fay 150 000 ki la ñuy fay 30 euh, 000 wala 40 000 leneen sénégalais yi ñoo koy fay tu vois nekk fa def ay heures supplémentaires yoo xamante ne maanaam tey ji taxawul di ko c'est c'est fictif pour lan lekk xaalisu sénégalais yi

mais da ngay jàpp un citoyen boo xam dañu la kat ah citoyen stop kii Macky stop waroo yokk courant bi parce que lii ñuy kii nii kat c' parce que y' une gestion gabégique sans fil bu bu bu nekk seen rek moo waral lii nii quoi tu vois donc yooyu mooy priorité quoi mais toog naan ñoo xam ne xëy ñu gontu liggéey mais boo amul foo dem nag xaalis ngaa xëy teg trois normes waxtaan comme ñoom ñoo si kaw ñooy séddoo six milliards yi fil ñooy séddoo si milliards ak 24 milliards Prodac tu vois Mame Mbaye Niang maa ngi ñëw si yow loolu neex nga wax yaa ngi gis ñu ñëw di affaire noonu nga toog yi il faut les da nga ñëw gis jeunes yoo xam ne tey jii am na ñi si tali muy que ce soit muy journaliste parce que bu fekkee journaliste yi tamit nga xam ne xëy ñu gontu ñu affaire yi si c'est pas un journaliste corrompu comme un un journaliste corrompu wala qui porte des airs, comme Yaxam Bay, et Saint-Fil mais doo do, lekk journaliste yi amuñu dara ils sont obligés parfois ñu jaay seen ngor nekk ay ay corrompu nga oo benn kii nekk bindal ma lii ci Sonko nekk tur oil alors que c'est des mensonges mais il est obligé de l'écrire parce qu'il ne il ne parvient pas à joindre les deux bouts bu dee loolu lu président bi wax nga kii nii mooy loolu ils ont raison parce que moo nekk dëkk dëkk ay milliards benn minuscule groupe di lekk ñu si di toog non non bi paas damay dox ci mbedd mi benn gars yor yàmbaam di tox tox ci mbedd mi dafa bi daan man mais non booy gis nga waa lu muy def lii c'est pas normal xool muy tox ci mbedd xanaa ma ne waa ji bu la neexee teg ci butéelu sàngara nga naan mu ma booy lu tax a yéesee ma ne ko non am yu gën a garaaw yu nekk yu ci kaw te waxoo yu gën a garaaw mooy am Senelec ngeen bàyyi ko yu gën a garaaw mooy am eh, ci pétrole bi ngeen bàyyi ko jikko jikko mbaamu xoox yi si kaw la jógee di rogalaat ba a punir ko ci suuf ko ci kaw mënoo ñëw te yii tey jii maanaam il faut donner l'exemple mais ñi si kaw mënuñu saboter ñi ñi suuf bëgg a régler mënuñu régler bu ma rombee taxaw di saw si mbedd mi ko maanaam c'est c'est à l'image d'en ci haut bu ñu taxawoon taxawaay bi ñu a taxaw kenn du taxaw di saw mbedd ko jomba sax ñu taxawoon ni ñu war a taxawee non nit du gàddu yàmba di toog si mbedd wala muy jël ay sàngaram di dox si mbedd parce que y a un bordel en haut donc bordel boobu mooy rogalaat ba ci suuf rek man du balaa ne kenn parce que ñi waroon nekk repère ñoo nekkatul repère nekkul ñu repère lu leen neex la ñuy def di ko kuli population bi donc gars yi sa mbëx loole c'est footballu muuma bu kenn wax ne passe ma tu vois ngeen ne nag waa ji dafa con mais du con du con du con ñoom lu Sénégalais yi def rek ñoom ñoo ko kilo ñoo ko kilo Sénégalais yi parfois tu demandes dans quel Sénégal on est dafa too ay factures yu cher nga dem gis Sénélec c'est un fil gars yi dem ay prime ay suwar koor un million di am ay ay comment dirais-je di leen chantage nguur gi boo leen koy ñu di ay délestage pour wàcc la yooyu moo fi war a jóg yooyu moo fi war a jóg te yooyu mooy priorité yooyu lañu ko wax monsieur le président bàyyi population bi léegi booy daw nañ ba dee maire yi daw nañ ba dee boo jógee fara fajar da ngay gis gars transport en commun yi yaay jën usines di dem si buntu usines yi kii wóoleen ngay def naan ay duñ def te bu dee journaliste yi nga tamit nga xam naan yàkkamte nañ ko def faute mais journaliste tamit a sonn dara tu as la chance tu euh, yi kii la ngemba la français yi ngemba la te bu ñu ma ngemboon tey jéemal ma nekk président président du mit président du am njàng président kay yow ñemeel sacrifier en Afrique ñemeel sacrifier sa rek Après, le, le, reste du boulot, les, les blancs s'en chargent. Oh, le président, monsieur le président. Tu vois Mais donc, bon, comment fait gagner il Faté le faire Le pouvoir, le pouvoir, ça rend fou. Et le succès, on va toog Faté, moi, loolu non, quoi. yaa ngi jox sama temps ça, xam nga fi Mame Mbaye Niang yow Mame Mbaye Niang da nga toog naan gars yi bu ñu amee preuve ci product bi affaire yooyu noonu nañ ko wane parce que xaw ma lan ak lan la Mame Mbaye Niang bërki démb lañ dossier bi c'est nul Moi, dossier 94 milliards kii bi euh, kii bi procureur bi tànn ko si tuwaaram ba mu neex ko mu génne ne c'est nul. sunku amul dura porte fenent donc yow yow 94 milliards su mënee nul 24 milliards mën a taxaw wax tu vois yéen kay nekk leen ci pouvoir ngeen def lu leen neex rek nekk leen ci pouvoir ngeen def lu leen neex mais bu ñaan falu ba tegaat ci dossier bi di ngeen ñam de doomu jàmbur yi ñuy jël den santaase ngeen fi ñu gën wala Khalifa Sall bu dem ngeen ngeen defe Sambara Couché la tëddoon wala dafa nekkoon hôtel 5 étoiles pour yéen gën Khalifa Sall yar seen yaram a ko gën wala yéen gën judd da leen tëjaate def lu leen neex parce que yéen yor Ablaye Wade moo yoroon yet bi joxe na Abdou Diouf moo ko yoroon jox Ablaye Wade Ablaye joxe ko joxe par ni wala par ne bu leen neexee def leen sama troisième mandat man je suis très patient amaat leen troisième mandat parce que maa da ngeen koy def par force parce que askan bi intéressé wu leen foo leen toogee xam nga wax naan non parti bi boo nekkee ci parti bi jamais vous ne prononcez le mot du peuple ne comme ça population bi sonn nañ ceeb bini nii non non yéen daal ay guerre de positionnement affaire noonu du loolu ngeen ko jëlee ya? mais dem len rek dem len toujours ma leen bëdd koy fàttali ko gis Rwanda ba muy tàkk pour yéen ay Rwanda ñooñu c'est des barbares eh, ay Congo ñooñu ñag ya ah ñooñu ñooñu civilisé wul li kat lu lu taal loolu rek lu ko raw mi ngi fii te mën na ñëw da leen toog rek di di jàpp ne yéen def ay positionnement ne nii te boo toogatee eh boy maa ñëw te boo toogatee suur naa suur naa boo toogatee boo su may wax si a coob ñu am seen gis boo toogatee di wax euh, comment dirais-je di wax euh, ci ay euh, naan APR dafa ay tóob ay nii ku ñu xam ci parti bi dëkk nii il faut les citer nommément da nga toog ne xoolal nga ni Amadou Ba dafay nekk tóob di wax dikki nii wala nga ni Moustapha Diakhaté day wax li nii nii mais tey jii lu fu mbooloo ne day mel ni fu mbooloo ne nga ni réeral naa téeméer wala réeral naa mille francs wala dañ maa sàcc démb parce que boo nee dañ maa sàcc rek même ki sàcc il se sent gêné y a des gens de l'appel ils vont se sentir gênés mais da ngay taxaw ne Amadou Ba comme ngeen Amadou Ba lu Sonko def Amadou Ba moo ko jox a ko wax nga nga ñemeen dëgg li ngay def bàyyi nga ne Moustapha Diakhaté léegi mais la peau des autres apéristes des autres politiciens gor bu def loolu yow ne nga da nel Moustapha Diakhaté tu es une taupe wala nga ne ah kii amul kii c'est une taupe nu mu sax Amadou ma sonal ak xonkaay boobu di sonal nit ñi quoi tu vois donc sa ko am dara na nga ko génne ko yow banaan di preuve nañ porte plainte looy xaar pour loolu mais tu viens tu appelles la conférence de presse nga woo expert ñu toog nga leen mi ngi nii maa ngi ni kuy nëbbu du ko wax mais ku ci am dara da ko génne ku ci am lii da ko génne mburu foofu ko fëriñ

non vraiment yéen dama doon xool duma leen xàmmee quoi man ma ñu jàmm passé leen ko ñemee ko saraxu ngeen ko temps bi ah, document yow yi yu product tamit ah ka lañ fiy biiral mu gis jànq bu biir naakaan caga nga da ngay bi téye boppam kay am ndaw kooku mën a toog ne xale yi téye leen seen tànk yéen ay leen ay caga ngeen waaye yow nga cagatu am ay say doom ñaari doom yu bokkul ndey ak bàyyi gis ko bi imba rek nga ay guerre de positionnement ba doon jógee Sénégal yi leen ana Sénégal le sont les le cadre de beau souci seen yoon newu ci ndax ndox coupé coupé naag sable yokk nañu ko génn seen yoon newu ci positionnement parti bi nii nii troisième bi jotatul vous n'avez même pas honte naan ay troisième mandat troisième mandat xam loolu moo baax mais dëkk boo xam ne tey yëpp dañ nañ deuxième bii sax da ngeen koo sàcc ñi nga bi échec yi la isaan bi da ji suppression du premier ministre suba par décret affaire da leen teg ngi ñëw ak ay de tu vois te dogal jàppale ne di xew Rwanda ak ay Congo foofu rek lay xew ñooñu ce sont les sauvages ce sont les ñàkk ñun fi amuñu ko lu taal foofu rek mi ngi rampite am na fi est jàmm seen troisième mandat on veut plus de vous le peuple vous a vomi ñuy dugg ci kaar yi ak ci yére yi di leen topp seen meeting yi ñooñu noonu xiifa tax ñu topp leen cinq mille ak dix-sept xaalis bi ngeen di jël tey fekk ci bi ay mbër amul combat nga jox leen dix mille pour ñu protéger la ñàkk moo tax ñu lay protéger si la veille quelque bu ñu benn source de revenu digne de son nom topp di leen di mais yéen doo leen jël message yooyu noonu kañ boo leen dem fekk fa caga bu fa gën a caga ngeen xoox euh, tëgaloo ko meeting jox ko fekk mbër mu fa amul combat ngeen jox ko xaalis ñuy protéger leen protéger ngeen dox comme des imbéciles tu vois Sénégal daal toj nit ñi bëggatu leen le peuple vous a vomi lii gën mooy comme mandala ñëpp naa laan toogaatal nga ne damay dem soo leen ko mës a dégg dem leen ngeen ne demuma parce que vous êtes des voleurs vous utilisez votre compte man xuma le deuxième mandat bi troisième mandat bi sax damay xaar mais di ngeen dem te bés dina ñëw te yàlla ngeen fekkee boo leen demee bu kenn dee na ngeen mat au complet ñu defal leen ay assises fii pour trahison amoon sa yërmande sénégalais yi di dee fii benn comme ay wañ ñii di feebar mënu ñoo faju Saint-Fil kër yu bëri nit ñi stress la doxee ku fi dee boo laajee ñu la léegi la fa romb ay parti bi il par jëmee le peuple parti rek parti rek yéen a soof ngeen baal ma kàddu gi ji mooy loolu quoi parce que man vraiment su ma wax ñoom damay damay damay désolé quoi tout temps ay guerre de positionnement tey bu dee Moustapha Silo Yaxam Mbaye suba ngeen ne kii ak kii si ay yaa de top les top il faut wax parce que am na loo xam boo ko xëyee ñu ngi koy taxal waa APR bi mooy nekk fi di gëñati suuf président bi wala a Diakhaté loolu nga def si grand place ko bokk tapet sama gars si kàddu gi fu mu ñaaw quoi Sonko foo ne temps yi sama ah ko bëgg saa ni ma élection bi xoolal ah non non mu gars yi xoolal waa ji ngi de xoolal barki sëñ Bamba élection yi ma ko xoolal kii rek ni gars yi jëlee seen natal ma sama sëriñ la de doy na ma ci diina doy na ma ci lépp saa gars yi bu baax bee ngi élection yi ba léegi maa ngi ko garde amu xolu taal ko amu xolu sànni ko du ko jox benn maire gerte caaf mu koy laxasee këyit ëpp na waa jaa ngi waay yàlla na yàlla falu defaat leen troisième mandat lépp baax na sama gars bi laa leen tàggu ah waaw ku ko yor nag na ko na ba léegi maa ngi ko garde ëpp naa eh, baa ngi waay <laughs> eh, waay la waay waay waay le messier gi waaye Thomas Sankara ay eh, waay waay ngi waay le révolutionnaire koy waay kii moo war a ñëw changer affaire yi de ba wax naa si yi ba xar déggu leen mi ngi nii de wala